Aluntine, bonjour. Bonjour. Africa Jom Center qui a sorti un communiqué dans lequel vous dites que vous craignez le basculement brutal du Sénégal vers l'inconnu. Pourquoi Parce que, écoutez, euh, de plus en plus, nous avons des problèmes avec le bon fonctionnement de la justice. On a eu deux précédents, surtout quand il s'agit de problèmes politiques. Euh, on a eu le cas, tout le monde le connaît, on a eu le, cas Karim Wad, tout le monde le sait, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une affaire euh, Sonko à Jassar, mais la manière dont c'est traité avec une certaine brutalité en direction des, euh, des membres de Pasteur, ça veut dire on a l'impression de démantèlement du parti du leader de l'opposition Alors, tout ça, ça crée, ça veut dire que l'état de droit et la démocratie sont des piliers. Un des piliers fondamentaux de l'état de droit, c'est bien sûr les partis d'opposition qui jouent une fonction de régulation. Dès mmh. que tu n'as plus d'opposition, il est évident que qui euh, est en train de sortir de l'ordre démocratique. Et ça, mmh. effectivement, c'est un constat que nous sommes en train de faire. Nous le faisons aussi parce que nous avons vu ce qui s'est passé aussi autour de nous. Hein. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, la plupart de ces pays que je ne veux pas citer sont dans des impasses politiques, ont connu des violences avec des arrestations, avec des morts. Donc, il est temps aujourd'hui pour nous euh, vraiment de mettre la balle à terre, comme je l'ai dit, et puis en réalité d'appeler à la retenue pour toutes les parties qui sont concernés et de faire en sorte effectivement qu'on essaye de trouver euh, les moyens de résoudre la et... question, je dirais l'affaire, dans le cadre d'une justice qui soit indépendante, dans le cadre d'une justice impartiale, de, de, nature effectivement à avoir la paix. C'est pour ça que nous avons invité le président. Justement, vous l'invitez donc à, à, à, ce qu'il euh, donc euh, mette fin à ce climat politique délétère, comme vous dites, et stressant, et assez tendu. Absolument. Il à effectivement mettre un terme à les jours que Dieu fait, ça fait presque deux semaines, on est affaire. On ne parle que de Alors que Dieu sait que nous période de Covid-19 qui de tuer des personnes, qui, de... qui des gens dans la pauvreté et la précarité et qui devait appeler vraiment à pour en sortir. Mais au lieu de cela, vraiment, Mais dans une histoire qui n'est pas une histoire banale, parce que l'histoire aujourd'hui peut remettre en question de façon surprenante et assez violente hein, de, vivre ensemble. l'a vu dès les premiers jours. Donc, c'est une histoire à gérer avec beaucoup de circonspection, beaucoup de doigté, et c'est à cela que nous invitons le président, c'est à cela que nous invitons également les partis politiques, parce que de notre côté nous nous condamnons toute violence, d'où qu'elle vienne, Et nous invitons les partis politiques, effectivement, à participer à l'appel à l'apaisement. Tout le monde constate qu'on va vers l'impasse, mais rien ne semble se passer. D'où peut venir le salut du Sénégal par rapport à cette situation-là Le salut peut venir effectivement par euh, la mobilisation de tous les leaders d'opinion. D'abord les, les, éditeurs et, et, et, les patrons de presse. Il y, a, il avait des moments quand ça ne marchait pas, effectivement, les leaders et les patrons de presse s'exprimaient pour dire qu'il faut arrêter c'est important aussi que les guides religieux, les imams s'emparent de la question et ne restent pas indifférents. Il est important que les juges, parce que aussi c'est très important pour les juges également de s'exprimer et de parler. C'est important parce que jamais effectivement la justice n'a été autant discréditée. C'est important que la discussion quand même retrouve sa crédibilité, son autorité et que les gens y croient. C'est important surtout quand il politiques. Il est important aussi que les hommes politiques, toutes tendances confondues, parce que quand on arrive à une situation où le pays peut basculer, mais personne ne doit rester indifférent, ni l'opposition, ni le pouvoir. Et je sais qu'au sein du il y a des gens qui sont préoccupés, mais qui n'osent pas le dire, qui n'ont pas encore le courage politique de le dire. Il faut qu'ils le disent, et c'est important. C'est parce que effectivement, la plupart des gens qui sont au ont profité des luttes démocratiques que nous avons faites pour qu'il y ait une alternance pacifique dont ils profitent. Et on l'a eu aussi au prix effectivement de sacrifices lourds avec des morts Donc, il n'est pas question de revenir en arrière. Donc, pour ça que nous invitons tout le monde par rapport au travail que nous avons fait. Je suis très bien placé parce que j'étais dans la lutte avec eux hier, avec eux hier dans la lutte. Donc, tout il est tout Aujourd'hui, mhm. euh, que pratiquement tous les citoyens, je les, j'ai salué d'ailleurs le fait qu'il y a qu'il y ait 102 universitaires qui ont, quand même euh, mis en garde contre euh, vraiment la violation de des normes de l'état de droit. Mm. important parce que ce qui a sauvé les États-Unis, c'est d'abord le droit et aussi les institutions. Quand Trump s'est trompé, les gens qui sont auprès de lui, à commencer par son président, ils ont dit à Trump, vous vous êtes trompé, ce que vous avez fait, c'est une insurrection. Les gens de son parti qui sont dans son parlement, dans le parlement républicain, parmi les patrons qui disent Monsieur Trump, vous vous êtes trompé. Et c'est pour ça, que Biden est président aujourd'hui. Oh, Biden serait comme en Afrique, en résidence surveillée, et Trump au pouvoir. Maintenant, si nous cassons toutes les institutions, aujourd'hui, quelle est l'institution qui est debout Vous allez au Parlement. On se demande à quoi sert le Parlement aujourd'hui. Et effectivement, le président du Parlement, c'est un démocrate, il faut l'écouter. Hier, on ne comprend franchement, ce qui nous appartient en commun, l'état de droit, les, les libertés fondamentales, effectivement qu'on veille à ce que, franchement, que ces acquis-là soient renforcés, mais pas détruits. Vous vous positionnez donc comme lanceur d'alerte Absolument. En ce moment, la situation est suffisamment grave que tout le monde, tous les gens se sentent concernés par cette situation et agissent effectivement pour qu'il soit, qu'il y soit mis un terme. Alioune Tine euh, yow yaa jiite Africa Jom Center di waxtaane lépp jëm ci wàllu ay xalaat di ko xel yi ngeen génne nag benn communiqué di wax ne fu mu nekk nii daal gis ngeen ne lii raam te ñag ba la jëm te Sénégal fu mu nekk nii buñ ci jugul amaana daal fa mu jëm ndox amu fa lu tax ngeen wax loolu foo leen ko teg. waaw duñ ko wax parce que temps yi li ñuy gis ay fitna. fitna boo xam ne. dëgg-dëgg euh, mi ngi jóge ci li ñuy tuddee affaire ndax moom nekk ci diggante ki wax Sonko ak Adji waaw mu Euh, boo gisee nit leen alkaati bi ñu koy jël si xeer yi lakk yi violence bi nga neex yàlla di jóge ci ñi ngi jàpp di tëj mel ni li nga xam ne mooy Sonko euh, lii di partem dañu bugg tas waaw léegi nag loolu gis bi ak coow li mu waxtu wi nga xam ne mbas mi mi ngi rey nit di rey économie di culture kooku moom ñëpp ngi ci te mbas moom waroon na tax ñëpp nekk benn boole seen doole xeex ko pour mu daan waaye lii nga xam ne moom la ñuy gis te muy raam gis nañ li mu jur boo demee Casamance gis nañ li mu jur mbir Dakar gis nañ li mu jur feneen kon nag loolu moo tax ñu ne président de la République gardien de la constitution yow la askan bi pouvoir tey da nga war a taxaw user pouvoir yooyu boo xam ne jàmm dafay dellu si dal dafay dellu si ci réew parce que dañ ne situation boo xam ne lépp li nga xam ne xeex nañ ko pour am démocratie pour am li nga xam ni mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi am li nga xam ne mooy état de droit dafa mel ni xeex boobu yëpp bu ñu deful attention day nasaxaay jóge ci pouvoir boo xam ne dafay démocratique nekk ci pouvoir boo xam ne bii kenn xamul lu mu doon dañuy génn ci biir démocratie démocratie dafa am ay piliers état de droit dafa am ay piliers piliers yi justice bokk piliers yi aussi institution publique yi comme parlement ca la bokk piliers yi opposition ca la bokk opposition bu baax bu fekkee ne amat amat amatuloo ko sa réew wala opposition amatoo ko sa réew mais amatoo démocratie sa réew donc loolu yëpp tax na ba nga xam ne mbir mi kenn waru kon na sa xaaral ñëpp ko war a jóg te quand même ñi ñëpp ko woo mooy ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñooy def opinion bi mooy ñi nga xam ne ñooy éditeurs yi ak patron de presse léeg-léeg bu ñu demee ba nga xam ne réew mi am na fu mu toll mel ni day jékki-jékki basculer daanu dem benn situation boo xam ne kenn xamul fan la ñooñu dañu war a jóg wax waaw kooku dafa am importance ci ñu koy sax yónnee naa leen ci ay message ñu gis justement euh, ñëpp a ngi seetaan di gis ne réew mi ngi jëm ci guuta te kenn xamul euh, nu ñu ko mën a def ba mun koo gàttandu yow si sa gis-gis loo jàpp ne yan pexe la ñu war a lal ngir euh, fànq loolu fànq loo parti politique yi ci seen bopp tey nga nekk pouvoir nga nekk opposition war nga woote pour dal am pour jàmm am peut-être war nga woote pour dëgg am ak justice am dafa am solo parce que dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn war ko yàq waruñu bàyyi kenn di ko yàq loolu dafa am solo ñii nga xam ne tamit mooy moom ñi may wax mooy patron de presse li nga xam ne moo leen war ci opinion bi ñu bañ leen a distraire ñu jékki-jékki toog ne léegi nag lii la ñuy wax mu am ay éditoriaux mu ay waxtaan wala conférence de presse ñu bokk ko def ko ñëpp leen di dégg ñii nga xam ne ñooy juge yi parce que tey ñëpp a leen di joxoon ñëpp a joxoon justice am nañ ci wàll te wàll am solo la parce que justice indépendante ak justice boo xam ne dafa équitable dafa am solo parce que perception boo xam ne mooy perception wu injuste loolu mooy indi discrédit mooy indi violence mooy indi leneen c'est important ñu wax seen ñu wax ci seen bokk centrale syndicale yi war nañ ci wax parce que réew mi fu mu toll ni amul kenn koo xam ne war ngaa noppi donc ñun tamit guide religieux yi war wax am na gis nañu ñenn ñenn ñuy wax mais seen baat dafa am solo ci réew mi war nañoo wax donc képp ko xam ne yow boo waxee ñu dégg la war ngaa wax ñu dégg la ndax réew mi toog benn toog toog ci palaasam c'est très important situation bi xam ne moom la ñu ne parce que bi ñuy seetaan a xam ne moo dal yeneen dëkk yi daf leen di dal te maa ngi wax benn affaire soo fexee ba nga xam ne léegi ñun ñi mënatuñu changer à la tête de l'État par des voies démocratiques par des voies pacifiques opposition amatu te nga xamante ni politique trahison rek moo fa am mais ñit ñi dañuy dem wuti kii leneen loolu moo indi jihaad yi dañuy dem gëm ya leneen lu dul lu dul politique ak ay ay ay ay ay tappale ak ay ay ay ay ay tricherie leneen lay andi nga ne yow yaa ngi interpellé ñi nekk ci gouvernement bi niki tey ñoom doon nañu xeex euh, démocratie am ci réew tey yaa ngeen interpellé ñoom ñu nekk ci biir ñu wax mais ñoom ci seen man maa ngi woon seen biir ñuy xeex mu ñuy xeex lu demee nii ñu ne seen biir léegi nga xam ne xeex nañu ak ñoom ba nga xam ne am nguur gi tey ça veut dire ñoom ni ñuy amee nguur gi démocratie moo tax ni ñu amee nguur gi am alternance démocratie ak liberté fondamentale moo tax parce que mënoon nañu manifester mënoon nañu génn def ko pacifiquement waaye ñoom ñu tey nit ba ñoom fi ñu jaar ba jot nguur gi keneen du fa jaar loolu du yoon te loolu tamit du indi jàmm loolu moo tax il faut que ñu wax pour dal teguwaat yoon ñu ngi kontaan lool ci li nga xam waa université yi wax nañu ñëpp a war a def comme ñoom tey ndax vraiment jàmm dellu ci ci réew mi mm-hmm. ñu wuuteeg 2024 2024 ak seegul mais li muy xeeñ neexul. li muy wane baaxul. dafay tiitalaate. ndax kon yéen da ngeen bëgg nekk magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. Ah, loolu loolu mooy suñu suñu suñu rôle. suñu rôle bu ñu gisee ay signes yoo xam ne lii day indi fitna si njalbeen gi la ñuy wax ne fii ñu jëm baaxul pour que ñëpp taxaw ñu arrêté ko loolu mooy yoon waaye boo gisee ni ñu ngi jëm ci biir fitna nga tee sa làmmiñ bés bu jógee ci fële bi nga ne xamoon naa ko boobu c'est trop tard. c'est le c'est le médecin après la mort léegi nag la nit ñi war a agir te ñëpp a war a agir fu mu ne nii pour ñu stopper lii baaxul si réew mi si bitim réew sax léegi boo demee ba da ngay rus bu fekkee ni sénégalais nga boo gisee président sax ni mu waxee ak ni mu kii ak ni koy laaje ak ni mu waxee nga xam ni vraiment c'est un malaise extrêmement profond ci la ci la installé ñëpp malaise social bu fort la ñu nekk il faut ñu génn ci et puis il faut que ñëpp taxaw pour ñu génn ci loolu la. jërëjëf Alioune Tine